yàllaa ngi wax ci sóorat nuur aaya fukk ak juróom-ñeent inna alladina yuhibbuuna baatu yuhibbuuna boobu na ngeen ko bàyyi xel baat bu yaatu la yuhibbuuna an tashia alfaaxishatu waaye fan fi alladina aamanu ñi nga xam ne dañoo bëgg wane ne jullit ñu bon lañ ñi nga xam ne dañoo bëgg a wane ne jullit ñi ñu bon lañ ndax lu bon rek la ñuy def yéen a ko yëgul loolu la dafa am ay ay institution dañu créer ay institution jox leen ay jumtukaay pour ñu wane ne jullit ñi ñu bon lañ ñu bon lañ mais bu bu ngeen ko gisee da ngeen koo yëgul rek. kaay leen ma wan leen nañu bon leen danaa ci dellu si am na fi ay émission yoo xam ne danaa leen tudd man aw ma woon di tudd ay mbir ci sama njàngale mais léeg mu laaj ay ay émission yu tudd tës tës émission bi tudd xalaas loolu rek liggéey loolu rek mooy seen liggéey loolu dong mooy seen liggéey fisal mbon fisal mbon wane ni jullit yi ñu bon ne lu bon loo dégg jullit yaa koy def boo ko yëgee boo ko yëgul loolu mooy seen liggéey ma bëgg leen yëgal ni liggéey boobu ñuy liggéey li mu leen di njëkk a lor mooy toroxal leen fii ci àdduna parce que yàlla moo ko wax yàlla moo ne إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ñooñu lahum adabun alimun fi dunya adab alim yàlla bu nee lu métti métti na ndax yàlla daraam tuuti baatu adab rek doyoon na parce que adab mbugal lay fi yàlla neen ñooñu danaa leen mbugal waaye mbugal mu métti fi dunya fii ci àdduna sikki nekkul ci sikki nekkul ci képp ku ci métti ci métti yooyu te bàyyoo balaa yàgg nga torox bu ma ko fekkee bu ma ko fekkul nit ñi danañ fekk sa toroxtaay boo tuub loolu jarul sax dem te ñëw ndax yàllaa ko wax te yàlla lu ma wax dëgg la ndax lu mu mës wax dëgg la mu ne wallahu yaalam wa antum laa taalamuun su yàlla nee bàyyi leen siwal mbon mi la muy jur yéen bu ngeen ko xamut it man xam naa ko su ma nee bàyyi leen siwal mbon mi siwal mbon bàyyi leen koo siwal la muy jur su ngeen ko xamut it man xam naa ko siwal bon lu bon la loo xam ne du jur jàmm a ah, aaya bi cheikhul mufassirin mi nga xam ne moom la ñuy dàkkanteel ibnu jurayr ibnu jarir at-tabari dafa wax ne inna alladina yuhibbuna an yadi an yadi zina yudi zina wala yadi الزنا في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيه لهم عذاب أليم jërëjëf jërëjëf dafa ibnu jërëjëf dafa wax ne ñi bëgg njaaloo siiw fan fi lladina amanu c'est-à-dire ñi bëgg a won waa dëkk jullit yëpp ay ñaanookat lañ parce que booy déglu émission yooyu moo xam test bi la wala xalaas bi ñoom li mu la mooy benn jullit loolu lañ a wax kenn góor bu dul njaaloo amul da ngaa loolu lañ bëgg a wax ñu dem ba kenn wóolootul kenn kenn wóolootul kenn loolu c'est dangereux fi ñu jëmale Sénégal fi ñu Sénégal mooy ñëpp a bon ñëpp a du dëkk ñëpp bon lu mu néew néew am na ñoo xam ne duñ def mukk lu bon te di ko tey te ñu bëri lañu aussi duñu minorité ñu bon am nañ te loolu dafa yàq mook ñun ñoo ànd waaye yàlla daf nañ lu bon loolu bu ko kenn fésal bu ko kenn siiwal yow nga def siiwal lu bon muy sa micc te ñu bon yu bëri ñuy siiwal du ma wax ne ñoo ko sos de parce que aw ma droit waaye man naa wax ne lu bëri ci liñ leen di informé ay sos la ndax ki tam wax naa ko ba tey man a fen mi ngi tàmbalee ci mën a nekk yi boo bëggee mën a fen rek jàngal nekk ndax boo dee nekk li di nekk li bañ ne cee informé il est vraiment informé il yàqu nga ndax bis boo amul informé information créée moo tax test yi ak wax sa xalaat bis bu ñu amul test bu bu bu daw yaram mën nañ ko créé du ma xam ne rek créé mais mën nañ ko créé kon léegi jóge nga ci fisal mbon dugg nga ci kaagaru fen nga boole fen ak ci fisal mbon loolu ku ko dëkki def ko métier bu sa xel dajee dalee dina récompli loolu ku ko tànn def ko métti bu sa xel dalee ngay tëdd di nelaw dina récompli ndax ku yàlla tëkku war war nga sa fit war naa dem ku yàlla tëkku sa fit war naa dem te képp kuy météo fesal ay mbon yàlla tëkku na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom la yàlla sas mu firil na alquran moo tax ñaare fu alquran yëkkatee kàddu bu daanee la rek yonent bi feelu ko yonent bi nii di feelu aaya bi ci hadis boo xam ne Abu Hurayrata moo ko déggee ci moom yonent bi lan la ummati muaafan kullu ummati muaafan illa almujaahirin wa inna min almujaahara an yacmala rajulu billayli camalan summa yusbix wa qad satarahu llahu taala فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر ربه عنه yant bi nee sama xeet yi ñoom ñëpp mën nañ cee génn ñoom ñëpp ci mën a génn pourtant xeet wu mën a mooy yàlla de xeet wu mën a juum lañ yant bi nee ñoom ñëpp mën nañ cee génn c'est-à-dire seen mooy yàlla bi mën nañ cee génn ñan ñoo tuddul génn illal mujahirin lu dul ñiy def lu bon di ko ñii def lu bon di ko nettali ñii dégg lu bon di ko wax ñooñu moom duñ ci génn yan ci mooy wax ñooñu duñ ci génn même buñ deful lu bon comme ñoo koy toxal duñ ci génn kon nekk nit ñi sax dañ ñëpp di mooy yàlla mën nañ cee génn yan ci bi nee danañ ci génn kenn dong moo ci dul génn mooy ki bon ba pare di ko nettali ñu ne ko loo jublu ci li nga wax mu ne benn waaye ngi nii boo xam ne yàlla daa def guddi def bëccëg lu bëri loo xam ne soo ko defee ci bëccëg bu mu feeñ ñu may leen nga def ci guddi gi te du feeñ guddi nekk sutura nit ñi reer tëdd nga reer dugg dëkk bi jaxase dëkk bi toj ko balaa fajar jot nga dellu kër ne xiim te kenn du la xamal dara kenn xamalu dara pourtant am na ñu xam ne tam dañ koy téye seen lam yi mooy borom bi tabaraka wa taala loolu maa la ko may sarax naa la bu fi nekk nag di baadoo la ba nit ñi xam ne nga def def lu bon rek doy leen baadoo waaye def lu bon ba pare nit ñi xam loolu moom yambar mu nekk baadoo la moo koy def ne neel mii bu ko kenn déggati waaye bu dee am njàmbar baadoo la moom danaan biig day xaar ba bët set bu fekk ñu yëgul dara xamul mu naan biig sama guddi gi ni neex def naa nangam def naa nangam def xam nga kooku amul chance koo xam ne yàlla dafa ne ku ma mooy ma dumal mu mooy yàlla suturaal ko mooy ne ko bu ko kenn man ak yow bàyyil noonu fii moom du ma la fi yàqal dara bu yomal xeyaam ñu seet ba xam fii la parce que li parce que ñoom ñëpp dañoo def ne ku baax te yow xam mais ñàkk maa yow rek ko xam tegal si tànk foofu bu seet ba xam waaye yëpp yàlla ba xam bat non yàlla bu ñu ko fay yàlla xam na yonent bi nee na yàlla nee na ko ci ci hadiisu qudsi bu yombal xiyaamee dana wéet mooy kat boo xam ne daa suturaaloon boppam déew moom dafay da koy këcc ci génne ko groupe bi li ma hadiis gën ne ko may sawaay may sawaay yow gars yi li ma defee nga ne waaw moom dañ maa xamul rek waaw xam dañ laa xamul rek ku defoon nangam ah non kay moom kay maa maa ko def de ok yaa ma suturaat rek mu ne léegi nga ne yàcc ah léegi nag parce que xam nga ne li ni nga mel bi nga waxee ni ñu nga fucc yàlla ne dafa nga man dinaa am mbaadoo la bu fa nga may njëkk a tooñee fa ma la mën a njëkk a toroxale